mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare euh, Babacar Sall nekk chargé de communication bu Pastef Touba euh, feggoo ak sëñ Cheikh Thioro Mbacké le ak les membres du bureau yi nekk ci ginnaaw bon tey waxtaan bi nag dañu ñëwoon pour indi ay leeral quelques éclaircissements par rapport ak sorti bi nga xam ne sëñ Abdou Samad def na ko euh, bërki démb di wax ne dafa génn ci Pastef Touba waaw ba ñu gis presse bu bëri titré na Euh, un grand responsable jóge na Pastef Touba am ñu dem ba exagéré sax na cerveau de Pastef Touba dem na muy loo xam ne lu ñu reetaan loola euh, ndaxte moom occupé wul benn poste de responsabilité ci Pastef Touba après dana leen wan bureau bi ñi ko occupé ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi depuis plus de quatre ans nekk euh, les membre du bureau exécutif moom bokk ci bokkul ci benn commission carte de membre sax amu ko bu fekkee am na ko na génne ñun ñëwee suñu suuf donc defe naa ne parti bala nga caa bokk il faut nga am carte de membre te moom mësul jënd carte de membre sympathisant la beneen bi ci topp bu ñu nee cerveau xanaa cerveau day am ñaari nit ci ginnaawam te wax dëgg yàlla gis nañ ne amul benn cellule bu mu mës a installé Pastef Touba les militants de Pastef Touba 90 pour cent xamuñu kan mooy sëñ Samat donc je pense que loolu moom euh, comme ni ma ko bindee bërki dem rek marte bu mu dóor ñi ko financé la loolu laa gëm Pastef Touba nag ñi ngànk liggéey bi ay nit ñu gore lañ ay nit ñu gore lañ bu ma paree naa ci indi preuve nañ naññ ñu xam ne ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi depuis 4 ans mën naa leen ko étalel fii seen Cheikh Thioro Mbacké mi mooy le coordonnateur biram Diouf mooy le adjoint moom moo topp si moom man Babacar Sarr man maay le chargé de communication euh, boo jëlee lu mel ni commission massification Baye gal Galmé nekk ci ginnaaw moom moo ko jiite Baye Djili Gaye nga jël commission euh, organisation suñu frère Bada Ndiaye mi nga xam ne dañ ko jàppoon te nañ ko moom moo ko jiite. nga jël commission féminine soxna Koddu moo ko jiite. nga jël commission euh, élection Salé Wade moom moo ko jiite. Euh, trésorier Amadou Diouf la mu am adjoint muy Madiaw secrétaire exécutif Talla Niang la boo jëlee GPS bi maam daam suñu frère bi ñu jàppoon te ko moom moo jiite GPS bi donc loolu mooy. ñi nga xamante ne ñoo ŋànk liggéeyu Pastef Touba donc moom dama gis gisuma place am foofu amul benn post bu mu ci occupé amul benn commission bu mu bokk lii nag ñi ko def liñ si jublu mooy jéem a xajamal liggéeyu Pastef Touba parce que gis nañ liggéey bi ñuy def ñoo ngi ci massification bi quatre vendredi yi passé yëpp dañu demoon massification trois vendredi yi di ñëw yëpp ay date la yoo xam ne dañu war a dem massifier ñi bëgg a liggéey ñi bëgg a xajamal liggéeyu Pastef Touba dañuy sonn dañuy sonn parce que duñ si am ndam te nag euh, li tax ñu choisir kooku dañu xam ne ñi fi nekk ngànk liggéey bi ñu gore lañ munuñu see jënd kenn moo tax ñu jëm jëndi ab sympathisant mais nag nit ñu xam nañ ne sympathisant la amu fi mbooloo dina am loo xam ne dinaa ko wax tey pour wal leen ne ñun ñu liggéey ñun ñu seq euh, liggéeyu Pastef Touba ay nit ñu gore ñu am conviction ñu dëgg ñoo fi nekk xam naa sëñ bi suñu paree dina ma mere <coughs> parce que xam naa du bëgg ma wax ko moom mi toog wala lazim fay nañ ko 80 millions jox ko 4-4 ak passeport diplomatique pour mu wan ginnaaw Ousmane Sonko te dafa bañ donc ñu gore ñoo yor liggéey bi kenn mënu li a jënd kenn mënul si ñoom dara donc ñi nga xam ne ñooy jéem lii nañ xam ne fi ñu jaar foofu baaxul ndax kooku occupé wul poste de responsabilité bokkul ci commission amul carte de membre militants yi xamuñu ko. donc kooku bu jógee bu bu bu nee jege na Pastef Touba Pastef Touba lan la koy wàññi lan la ñuy wàññi. ñu ngi ñu ngi suñ massification donc loolu daal laa xamoon ne euh, am na lu pour pour bañ a guddal loolu laa ci bëggoon leeral pour ñu xam ne daal ñuy wax un grand responsable a quitté Pastef Touba grand responsable amu fi ab sympathisant la woon boo amul ñaari nit ci ginnaawam moom dong la woon du grand responsable jiitewul commission amul carte de membre mësul montel Pastef benn cellule loolu na leer nañ léegi nag naa bàyyi seen Cheikh Thioro Euh, mu waxtaan ak yéen ci diggante bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko ak communauté Mouride parce que li ñu xam li ñu gis mooy ñii di def lii yëpp jaxase Sonko ak communauté Mouride lañ bëgg waaye loolu nag euh, bu leen seen Cheikh Thioro euh, wa waxee Sonko li mu seq ak communauté Mouride dinañ xam ne jaxase ko communauté Mouride kooku moom ku koy jëm dangay ngay sonn waaye doo si am ndam voilà. dégg ma mois. 4 mois 5 jours 4 mois 5 4 5 mois la fi def ci parti bi te parti bi sax moom da nga ñaata ñaata mois la nekk sympathisant parti bi 4 5 parce que du membre parce que amul carte de membre donc c'est un sympathisant rek. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifatul am di tariqatil muridiyya di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ba naal yi nga xamante ni naal na ko liggéeyal ko maamam ju tedd ji si Ahmadou Bamba suñu borom may ko kattan ak doole ju mën a yegg leen naal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp barke Sëñ Tuubaa di siyaar bu baax sama sëriñ sëriñ Seexuna Mbàkke mu Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaanal mooy mu yàgg fi loolu te ànd wér xam naa sax li Babacar wax du ma ci dellusiwaat ndax yaakaar naa leeral na kan mooy sëñ Abdou Samad Mbàkke sëñ Seexuna ndax dinañ ko jox wàcc wàccuwaay yu ko yàlla jox ndax yoonu murit ku ci nekk xam na ne daa am nu muy daa am yoonu murid ku ci nekk xam na ne daa am nu muy doxe te ñun ci politique lañ nekk waaye yoon wi ni muy doxe suñ kilifa la ci ndax suñ mag la yoon wi waaye li Babacar wax du ma ci dellusiwaat ci dara ndax lépp yaakaar naa leer ndax parti politique muy association muy kuréel gu mën di nekk bala nga caa bokk daa am lu la ay boole la la cay boole d'abord mooy am nga am carte ba carte ba wa nga xamante ni moo composé fe nga am ko te comme niñ ko ñëpp waxee moom kilifa moo ko booleek Ousmane ndax ñëpp xam nañ ne sëñ daan mbàkkam Cheikh Abdou Lahat doom ju mu tuddee doom ju mu tuddee nijaay Ousmane Sonko ju bokk yaayam ndey ak baay bu doon dund sama moroom la kon relation diggante sëñ daan ak Ousmane moo jur relation sëñ Abdou Samad ak président Ousmane Sonko muy relation boo xamante ni du relation bu sori ndax ab relation li koy dëgër mooy di wootante di gisante te ragal na rafet naa njort ne bi ñu gisantee kër sëñ daanum sëñ blaat tënk fa la ñu tënk mu jógewaat fi ma ànd ak moom ci otoom ñu dem ba Dakar président Ousmane Sonko recevoir du ma ne président mais moom mu recevoir président Ousmane Sonko bi ñu bépp a ngi adduna bépp nga may déglu te rus naa wax lu dëgg Ousmane di ko dégg moom bañ maa naw la Ousmane wala Abdou di ko dégg xam ne lii Cheikh Thioro di wax du dëgg loolu jomm naa ko kenn kenn jurlu ma ko ci àdduna bi egsee a ma déedéet sama mm. ñëw fekk ko fa ñëw këram fekk ko fa ñu waxtaan lu ma 2 heures de temps 3 ak léegi gisuma loo xamante ni Abdou Samad def na ko ci parti bi muy moyenne muy carte de membre muy dara kon kooku moom mën naa jàpp ne kon nag comme li Babacar wax du ma ci lisuwaat loolu moom jàpp naa ne leer na nañ te léegi diggante 4 mois lay def te 4 mois suñu activité yéen journaliste yéen a koy couvrir amul kenn ku fi mën a taxaw daane mas ko gis ci benn activité Pastef boo xamante ni Pastef def na ko bu dul doo di sànq te maa ko yëgaloon kon nag jàpp naa ne di euh, couvrir événement bi toll noonu naan Pastef Touba perte na ak room xanaa roo man li ma jàpp ne moo moo moo normal ku ci nekk am nga droit bu fekkoon leen dafa def point de presse rek war ne nekkoon naa sympathisant Ousmane Sonko bàyyi naa Ousmane Sonko dem doore ñu gis ñu def point de presse d' sax ko jox li tax ñu def point de presse leeral mooy li mu da waxaat ci point de presse bi wax ne euh, bi mu ko bàyyee léegi sëñ Mountakha rôle bi mu joué waroon naa ñëw delloo ko njukkal sant ko gërëm ko may xamal ne moom du point vocal président Ousmane Sonko ci Touba du coordonnateur am ñoom ñaar duñu wax téléphone kon li Ousmane Sonko di séq ak Serigne Mountakha loolu dina ko ump du ko xam ba adduna tukki loolu moom pour mu leer du ko xam te yoonam du ci nekk it te président Ousmane Sonko Serigne Mountakha Bassirou xam na ko teg Ousmane xam na fi mu teg Serigne Mountakha Bassirou xam na fi mu teg kilifa diine yi nekk fi sax naan Ousmane lii la séq ak kilifa diine yi loolu wax ju yàqu la ndax ñoom mënuñoo teg personne bañ xam li Ousmane séq ak kilifa diine yi ndax ku ci nekk jàppe nga ko comme sa doom jàppi nga ko comme sa taalibe jàppi nga ko comme sa jarbaat loolu mooy leer ndax damay faral di wax bis bu yàlla sàkk te kàddu yu ma gëm la Ousmane Sonko président Ousmane Sonko borom deret ju wicc du ko contre loolu mut nekk c'est impossible ndax homme politique boo xamante xoolee diine l'islam di nga ko gis koo xam ne dëgg moo la ñor kooku amoo droit contre ko waaye man damay wax ne tout le temps rek àdduna moom nii lañ ko man nii la mas di nekke moom day am ñu ne fii am ñu ne fee ñun fu waay nekk dañ la koy respecté bàyyee laak fa nga nekk waaye rik bu politique tax ngay wax loo xamante ni gëmoo ko wala ngay wax loo xamante dëgg man nag jàpp naa ne lépp comme ni nga ko waxee am na lu ne ci gannaaw li ne ci gannaaw it mooy la neewoon ci gannaaw ba Ousmane Sonko yëngoo ba léegi ndax bu ñu ñu fàttaliku ñu génn di ko attaqué naan ay salafiste lañ ñooñu ñoo ne lii gannaaw rek imam yoo xam dañ leen du man dañ leen rajo sax mais dañ leen dàq fañu daan jiite ñoo fi nekk ay courtier marabout ay ay président ay ay ay ay Marème li ma bëgg wax ki may la xam na boppam te dina leer ci moom du ma ko tudd imaam yoo xam dañu leen rajo fañ daan liggéeyee ca bitim réew ñu ñëw fii nekk ay ay ay recrutement lay wax di recruter ay nit loolu dafa dafa salte ci réew mu normal surtout koo xam ne imaam lañ lay wooye waaw man lay wax na li may wax yéen a may jël noonu ko mën a camaraay baax waaye imaam yoo xam dañu leen tuddee ay imaam nga xam dañu leen dàq fañ daan jiite ñu ñëw amul amul dara lu ñu war a def lu dul topp ñaari sagar nit ñoo xamante ni ñaari at ñoo la des wala ñetti at di leen dungur di leen jàppe comme yàlla loolu lu jaaduwul la lu normalul la lii nag xam nañ li ne ci gannaaw bu affaire yi dina am yeneen révélation yoo xam ne dañ ko génne ko xam ne Pastef Touba mënuñu ci yëngalu ni depuis 2014 ay góor ñoo ànd ak président Ousmane Sonko ñoo passe bi mu yor muy Pastef Touba officiel donc fay nañ ko ci 10 millions pour mu jaay passe bi pour ñu saaga ay kilifa diine war ne waa waa Pastef ñooy saaga kilifa diine yi kon am na ci loo xamante ni moom du jàll ndax ñun damaa jëlale bu passé bu passé sëñ Tuubaa gi sax ñun suñu maam yi ay ay caddu lañ Lat Joor mooy sama maam deret ak Buuna Alburi Njaay kon kooku képp koo xamante ni luy matt gor bu ko séenee day ŋaang man sama njëkk kenn amu ko ndax damaa jaayut képp koo xamante da ngay proposé nga dem proposé ci ñuy jaay nga dem jënd leen reere ruuy ak ak sombi moom a gën a ma war Ousmane Sonko ci caméra laa ko ne bàyyi naa Ousmane Sonko mu bàyyi naa politique loolu na leer nañ ci caméra laa ko ci Camara laa ko wax adduna bi yëpp lu ma seetaan bu leen neex ngeen denc arsi bi heure boo leen déggee ñu ne Cheikh Thioro bàyyi na Ousmane Sonko mooy Cheikh Thioro bàyyi na politique benn politicien boo xamante jaral da nga mooy politique ndax moom moo ma ko jaral moo ma njëkk dugal ci làng politique yi bu ma ciy génn it moo ma ci di génn waat ndax politicien yi ma gis ci Sénégal amul kenn koo xamante ne jaral nga ma lii may def kenn jaralu ma ko damaa jàpp homme politique bu mel noonu bu ñu ko amee waruñ ñun sëriñ si dañu ko war a jàppale mais pas waruñ di utiliser woobu sëriñ pour muy xeex Ousmane Sonko loolu lu ñaaw la ñun nag fi ñu wutee yeneen politiciens yi ñaar lañ ñu wax dañu ko gëm te pare nañ pour joxe ci suñu bakkan bi saxaaba yi bi ñu daan jàkkaaru yéefari di xeex ñu nekk ñetti junni nangam li taxoon ñu a gañe mooy au fit lii bu ñu nee ba da ci tiit du toll na tarfata ay ni dañuy bu fekkee ne dañ ñoo réer nañ ñu dem laaj marché occas gi ñu yaroo xam ne ay tàppet mënuñ koo nekk te duñ ko nekk ba addunay tukki nañ arrêté seen manipulation yi arrêté seen tappale ak seen caaxaan yi xaalis ku bëgg da koy liggéey ñun li ñuy dundee ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp amul kenn koo xamante ni mën ngaa nekk suñu gannaaw di ñu wax loo kii que ce soit président Ousmane Sonko mi ñu jàppale bu demee ba jot pouvoir bi li mu ci Sénégal moom pour xeex ko pour diggante président Ousmane Sonko ak sëñ Mountakha li ci sëñ Bass leeral ku mu leerul waa déglu rek sëñ Bass Porokhane li mu leeral ci diggante président Ousmane sonk ak sëñ Mountakha ku mu leerul naa fex nga war a bëggoo gis la leer nee na Ousmane Sonko bëggoon na fee ñëw sëñ bi moo ne ko nañ bàyyi procédure bi mu ubbi jeex mooy gone yi ñu ci kaso yooyu te ginnaaw ñaan na Ousmane Ousmane may na ko te buñ na ngeen delluwaat ginnaaw Ousmane Sonko dossier bi moom dong ci diglu kilifa diini ndax bi mu taxawee ne du ma wuyu ji Sénégal yëpp dégg ko dégg ko mhm. man maa njëkk annoncé wal fajar yaakaar naa yow mi yaa ma introsé woon ci Sénégal yëpp man li Ousmane Sonko dina wuyu ji suba ndax sëñ Mountakha Bassirou woolu na sëñ Abdou nee na ko na dem wuyu ji ndax lu jàmmi réew mi ci la nekk Ousmane Sonko pare na pour wuyu ji suba boobu ñu bëri dar nañ seen gëm ndax Ousmane Sonko li waxoon ba ci 21 heures ci le président Sonko def foyer na sëñ Abdou sama si yàlla damaa waxoon lu am solo boo ñëwee mun la damay bul ko téye boo yeewoo ba mu la ko wax fekk na jël na ay bagage am ba pare ba mu naan damay dem bul ko jéem a téye ndax ba mu la ko fekk na lem na ay bagage ba pare kon nag nekk naan damay bëgg a génn sëñ bi Ousmane Sonko digganteem a kilifa diini kilifa diini dañu ko jàppe comme doom am na ci ñoo xam ay kilifa lañ mën nañoo dem ba moom Touba yàlla na yéex waaye tey ji ay kaamil lañ doon wàcceel président Ousmane Sonko bi nekk ci xat-xat yi ñoo xam ay ngi ci jàmm ñii di ko defal ay dog yoo xamante ni dem nañ sax am na ci ko xam dem na ba yëkkati yëre boo xamante ni yërëb sëñ Tuubaa la ne fexeel ba Ousmane Sonko sol ko ci yaramam yëre boo xam ne yërëb Cheikh Ahmadou Bamba yooyu ku leen di tudd di tudd bëri wax day primé day yàqu du waxi ñoo xam ne ci internet bi di wax même gaa moo leen recruté rek sans yoo xam dañu a ifan ba sax pour ñoom ñu ne porte parole lu wax Ousmane jàngal xasaay même gaa moo leen recruté rek di leen fay xaalis pour ñu dal ci Ousmane Sonko même ñun ñi bu paree dina recruté waat ñeneen pour ñu dal ci kaw waaye pare nañ pour lépp daal gor daal boo ko bëggee gis jàppal ñi nga xam ne ñoo composé Pastef Touba boo bëggee seen ay gor jàppaleen Pastef Touba moom mënuñoo jënd ñi loolu na ay kon nag loolu war a bëgg mu leer loolu moo nekkoon sababu point de presse bi ñu leeral ko xam ne pare mu bokk ci famille yoonu murid nag bu ñu nee ba jokk ci daaru muuti di di kirim nañ ñu ko wax koo xam ne sëñ Abdou Mbacke m sëñ Cheikh Khadim mooy sëriñ Sénégal yëpp dégg ko mu leer nañ ñu taxaw naan kan mooy sëriñ ñoom fan la jokk ba ay kilifa ñoo na ci loo xam ne ñi ngi koy wax ñoom di dalal ay jigéen di leen ko laaj ne leen ne leen fu mu te ñoo xam ne ñi koy wax tey ji bu loolu génnoon mën a indi guerre civile wala guerre confrérie ci Sénégal te yàlla xam na ne bu continuer dinañ wax lépp mu leer Sénégal nag suñu mën taxaa jàmm la fi ñaan am na ci yoo xam ko leeral waaye billaahi bu ñu ci poussé tàkk te bu ma jambal amu lay wax ci moom ndax mbaam muy taxawal dong la dara la waxut ci moom. de tekk baatu baatu tekk baatu tekkiwul dara dafa diis du ma ko wax ndax jàpp naa ne kilifa la waaw parti bi da ciy bokkul xam nga loo bokk ngay tekki dara parti bi bokku ci ndax parti bi carte de membre moo la ciy boole encore une fois sympathisant la boo xamante ni ñu ngi doon ñu ngi doon liggéey ak waaw sympathisant la boo xamante ni sympathisant la boo xam ñu ngi doon liggéey ak moom pour mu taxawal ay cellules monter ay affaire bi ñu gisante Ousmane ci loolu lañ nekkoon di ko liggéey léegi nag man damaa xaaroon kay ba mu ay cellules gi doon bu ko defee bu bàyyee sax bàyyee door am sens waaye koo xam ne carte li gën a simple sax carte amu ah? carte de membre adhéré ci parti bi mu dëgër kenn ku ne woon dama bëgg a bokk sax ba si yàgg mu ne bëggutaa bokk dinañu déranger waaye li leer daal ba leer moom minimiser moo ko tuutul moo ko yëgu ko sax yëgu ko yëgul ko yaram amul jot gi sax ma ngi ci Déthié Fall ne mi ngi doon dalal gone yi léegi nga xamante ni songu nekkul ci yooyu nag am réew la bëgg a jiite bëgg a jiite am réew la bëgg a jiite am réew doo ko jiite topp ci détails ñàkk fay doy yëgul ko yaram sax